jërëjëf jërëjëf ba ma laajee réew mi jox lañ ma ko <laughs> ku ànd ak ñu àndal lu la neex laaj ma di ko ñaan nañu àndal lu ñu laaj dañ koy waa jot te ba ma bëggee jot ci réew mi da nga ma da banque seen loxo yooyu sax yàlla baax na ba fu mu ne nii politique moom ma ciy wax dama koy xam réew Sénégal laay bëgg waxal te ma nekk citoyen boo xam ne yàgg ci réew mi dugg ci gouvernement xam lan mooy gouvernement liggéey naa ci gouvernement Abdou Diouf bi ñu defee gouvernement d'union nationale et de transition woon nañ ci ñu daal day ñëw liggéey naa tamit ak ci gouvernement Ablaye Wade le président Ablaye mu jox ma ay fonctions yu am solo ma nekk ministre de la justice benn ñaareel ma daal di nekk ministre des affaires étrangères nekkoon naa affaire mine xam naa ko kon am naa ay cër yu ne le président Ablaye Wade jox na ma ko ci biir gouvernement bi nga xam ne taxawaloon na ko ci 2000 bi kon nee na ko yàlla defal jàmm ni ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram expérience ci politique dafa war a am gis nga boo nekkee ci réew daal de gérer li nga xam ne moo gën a sensible mooy justice justice juridiction dama ko jàng dama ko xam te xam nga juridiction dafa sensible parce que lii la lay may xaj la lële doo xam sax des fois ñu ne la article bi lii lay bañ article bi lii la nangu lee mu bañ nga nangu ko fee mu bañ ko fii kon juridiction dafa nekk loo xam ne bu ñu la ko namee nga nekk ministre de la justice dafa am nooy taxawee sa taxaw fay sensible parce que le président le président <laughs> Macky wax na ko laaj nañ ko interview mu ne am na ñoo xam ne du leen topp parce que bu leen jàppee réew mi tàkk moo ko am na ñoo xam ne du ma leen jàpp parce que boo leen tëjee réew mi tàkk waaye ñooñu ñooy ñan xam nga ñooñu mooy ñi nga xam ne wax fa dëgg yàlla loolu bu ko président waxee loolu idéologie xalaat xalaatam la moom moo xam lu tax mu jàpp ñooñu bu ñu leen jàppee réew mi day tàkk ci ban côté lay tàkkee. moo ko xam kon nag je pense que bu fekkee day wax loolu rek li li ko war mooy le président de la république Macky Sall mu daal jël wax jooju daal koy def wax joo xam ne day day njaaxaanaay lay tëddee mu nekk ci opposition bi ak nga xam ne ñoo ànd ak ñoom parce que ko defee ñi nga xam ne ñoom la àndal ma nga leen protéger ah <laughs> est-ce que yaa ngi dégg parce que juridiction day atte njabootu décret ak loi dafay am. parce que juridiction bi nga nekkee elam nañ lay jàngal lan mooy juridiction droit dafa yàgg université doo ko jàng toog fa yàgg génn na lii nga ne déedéet du lii waaye plainte bi nga xam ne moom la ñu wax ne dañuy plainte contre x kan mooy x kan mooy x bu fekkee da ngaa porte plainte contre x la kan ka nga dem yëkkati euh, mbalaanu kiir laayam ca assemblée nationale xanaa kooku mooy x te x amul si x trois points d'exclamation boo ko defee mooy x rek x revient à x x mooy maanaam ala xam ala xam mooy xamoo kan la waaye léegi yow xamoo kan la ba pare dem yëkkati mbalaanu kër laay ki nga yaakaar ne moom la kon foofu article 44 mooy taxaw si su du dem parce que juridiction bi defe naa si la loi interdit loo xam ne dafa universel kooku mbubu day taxaw kon état dafa war a am ay avocats yoo xam ne ñoo war a génn nag juridiction bi ñu daal koy téye mu xam ne nag képp koo xam ne dañ la woo ci état da ngay ñaar rek ñoo mën a am instruction bi nga xam ne moom la bu fekkee ne président président Sonko ko wax ci kaw fekkee Sonko ko wax ñu am ay éléments sonores yoo xam ne dafa visible ñu daal di koy capturé na ko ah yow yaa woote pour xale yi yëngal donc ci loolu lañ lay toppee <laughs> ci loolu lañ lay toppee loolu nga koy toppee doo ko toppee ci leneen parce que dafa wootee woote boo xam ne génn leen. loolu nga ko mën a toppee waaye boo ne damay contre plainte x x mooy kan <laughs> x n'appartient pas à personne parce que A est égal 1 2 B est égal 1 2 si A et B font l'union C A union B mais si x et x x zéro zéro et nil fu x nekk ko ala xam <laughs> ba ñu ko bëgg a def dafa xam ku x mu ne ala xam ko kon ki ngay topp te xamoo kay bàyyi le président Macky Sall yaa ne am na ñoo xam ne boo leen jàppee réew mi tàkk te yii dafay indi ay sulante mbóot kenn ku nekk am nga fi lay métti yaa ko xam ku nekk fi lay métti yaa xam yaa bi xëy na ko ma fii métti ma basal la ko <laughs> ak mbay kay fay way na ko nee na basal basal basal <laughs> xam nga yooyu dafa nekk yoo xam ne tey dafay rekk ci dund nit ki waaye nag juridiction dafa leeral lépp loo xam ne da ngay topp doomu aadama x daal bokk ci vocabulaire juridiction man jànguma ko ana avocat yi génn leen ngeen wax le ba le bâtonnier des avocats barke démb dama ko woo téléphone na ko x bii mooy lan parce que ñun ñu ko juridiction dafa am na muy tëddee ñaxa njaaxaan naa ngay tëdd nga ne faa nga jàkkaarloo asamaan si ndey joor war a càmmooñ waaye doo wete ñaamu doo wete ñaamu mooy am foo féete rek ne ñii kenn du la laal ñee ku si def mu laal la loolu baaxul boo protégé ñi nga xam ne ñooy état xeex opposant yaa ngi wete ñaamu wete ñaamu mooy weng lu daal kon mbaxane sama mbaxane bi dafa wete ñaamu mooy dafa féetee boor sama mbaxane bi dafa wengal mooy lu dem bay waaj a wadd mbaxane bi dafa daaju